seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé tàmbali yër yéenekaay yi ak procès xalifa Sall yéenekaay bi di laas ne tàmbalagul de kees à Pandor loolu yëpp nekk ci biir caisse d'avance bi tàmbaliwul démb ci ubbite ga loolu la ñu yaakaaroon waaye nag lu ci mën amit ba des yéenekaay bi le témoin na giita ngaas laalante yu métti métti gis nañ ko ci diggante avocat yi défense bi ay avocat Khalifa Sall tàngal nañ jëpp démb Sall bañ doon àttee kii nga xam ne moo di Khalifa Sall avocat défense bi ak parquet ak agent judiciaire defante nañ ba mu saf sàpp loolu ñu yéene kay bi la témoin wax débat yu métti métti procureur ñu coincé ko ba tax juge bi ne mbir yi dañ koy renvoyé ba 3 janvier 2018 ndax nag dafa bëri ay rëq-rëq lool maître El Hadj ci biir yéen kaay bi la témoin <laughs> ngañaay lu njëkk laa ngi nii ngañaay lu njëkk laa ngi nii maître Babacar Cissé di avocat état bi ne ñun dossier en beton la ñu yor yéen kaay bi la témoin ne ñooñu Khalifa Sall yi nag wax ko dëgg neex yàlla démb mobiliser nañ mobilisation bu jéggi dayoo ànd ak timit opposition bi waaye démb ku jaaroon ca palais bi ni attee comme guerre comme guerre daanaka sax da tiit Idrissa Seck yëkkatee kàddu ci biir yéenekaay bi di la populaire ci waxtaan mu séq ak suñuy naataangoo lu mu wax ci mbiru xalifa Sall nee na ci histoire politiku gu Sénégal musta gis ñu caxat-caxatee ñàkk loo fayda nii justice manipuler ko manipuler ba mu doon arme de destruction politique ci gën a dayoo te musu koo gis mu ne ñetti weer a ngi nii maa ngi wër Sénégal fu ma dem ñaaxtu joytu rek laa fay gis ndax nag kunise seen kunise seen seen bourse familiale yi ñuy sànni ci mbedd mi moo tax réew mi di développé libération dikk ci AIBD nee na ger amoon na ci ay pots de vin ay enquêteurs allemands gis nañ lu ñu mel ci gëstu bu ñu doon def kuñ ci duut baaraam nag Bibo ak Mamadou Pouye bu ñu condamné fii ci dossier Karim Wade ci ay ba dee la ñuy des ba tey jii yéen a le témoin ne ubbi tey grève tey syndicat aiguilleurs yi ñoom seen bopp dañoo décidé woon ne dañ def service minimum lor nañ nag compagnie yu bari lool dem ci assemblée national ak yéen kaay bii di laas na <laughs> tey ñu xool nag ñan ñoo ràññeeku la ak ñu tekkiwul woon dara ci assemblée nationale mérité woon ten kii nga titre député Ousmane Sonko moom lañ gën a ràññee ci wàllu votu budget yéen kaay bi di laas na ak ma Madické Niang bett nañu baree bari ay miiru ñing ci wàll ñi nga xam ne ñoo yor majorité donte am na xam-xam bi lan lenn rek lañ ko mën a waxal nekkewu fa woon lu dul defendre nguur gi Modou Diagne Fada kenn gisu ko Woré Sarr Sadaga Seck ñoom ñooy flop yi ñoom daal lañ nekkee woon assemblée nationale kenn mënu koo rafetloo ci biir yéen kaay bi l'observateur El Hadj Diouf footballeur di wax lu tax muy dugg ci politique nee na day jàppale naam Macky Sall waaye bokkul APR ñu ne ko wax El Hadj est-ce que digga ma sa doon candidat élection présidentielle mu ne mën na nekk Lions yi Puma moo leen di solal juróomi at indi nag 1,6 milliard loolu la Vox Populi wax jërë ngeen jëf dégg mu ngi leen di rek ci ñaan seen site